ñu woote mbooleem ñoo xam ne xam nañ ne dëkk bi am nañ jafe-jafe ñi ngi dund ci jafe-jafe ci assainissement te ñëpp ñi ngi ciy def li nga mën état Sénégal mi ngi ci di def li mën lépp commune bi mi ngi ci di def li mën lépp association yi ci koñ yi ñu ngi ci li mën di def lépp waaye loolu assainissement dafa nekk mbir mu diis moo xam ne mënul xëy sotti bi ñu dajee waxtaan ma woo ak autorité yi muy gouverneur préfet sous préfet woo association yi fi nekk yëpp woo service technique yi fi nekk yëpp woo waa Touba ca kanam ak association yi nekk ci gox yi ak goxaat yi ak euh, waa wilaya ñëpp laa woo woon béyu woon benn secteur ne leen dañoo ba damaa bëgg ñu def ref journée de réflexion boo xam ne dañuy xool jafe-jafe yi nit ñiy dund ci dëkkam Sëñ Tuubaa bi nan la ñuy def ba def ci liñ man ne do saafara moom yombul waaye nit sañ naa am yéene am pas-pas tey jéem ba sun borom dogal ko loolu moo tax bi ma leen bi ñu toogee waxtaan ak autorités yi ak waa membre de état yëpp ak service technique yi waa Touba ca kanam ñoom ñu ñëw ci ak acte bu am solo boo xam ne ni ko sëñ fa Fatah waxee mbooloo mu daje te am pas-pas te am yéene tey dox lu nekk fu nekk mën nañ faa àgg ndax li mu wax nii ñu ko tàmbalee dañ ko tàmbali yow nëga mu jëm ba abadan ndax feek addinaa ngi dox yoonu murid di dox Touba di dox liggéeyal sëñ Touba di wéy kon noonu ma ñu firndeel ko ñu daje waxtaan ci ñu tënk li ñuy tënk nan lañ ciy jubloo ñoom ñu dem réfléchir ba trouver solution bii nga xam ne ñoom ci seen xereñ ci seen njàmbaar ci seen ak manko ci yëg-yëgu sëñ Touba nga xam ne li ni ñu ko tuddee Touba ca kanam taalibe seen Touba yëpp a ngi ci ñu laase ko mu murid yi répondre ci nii taalibe seen Touba yi répondre ci nii li ñu ci tañ ànd kook ñun la ma leen waxoon ci tàmbali ba rek maa ngi yéen Touba ca kanam moom liggéeyal seen Touba te kenn duma ci man fu ñu toll ku fasiwuma yéene ku yàlla bind man ma ci liggéeyam sëñ Touba loolu moom maa ngi ñaan suñu borom nekk ci jàmbaar yi ci kanam loolu nag ñu ànd ko moo tax bi ñu jógee ñëw Abdou Lahad Ka en tànk que taalibe Serigne bi ñu waxtaanee ma ne leen danaa ci def sama ñaq danaa ci def sama alal danaa ci def sama xel danaa ci def li ma am lépp ci logistique. loolu moo tax bi ñu ñëwee en tant que Abdou Lahad Ka ma jël 5 millions yoo xam ne maa ko def addiyee Serigne du acte bii nag moo njëkk ci moom dama fas yéene acte bu lu ñu yëkkati rek Abdou Lahad ci biir lu ñu yëkkati fu ñu toll ma toll fa ñoom feeg maa ngi koy man loolu ma ma ma yëkkati loolu def ko yëkkati sama logistique du entreprise boole leen ak moom ne leen fu ngeen toll ñu toll fa doore nañ ñëw ci li nga xam ne moom laa yor te ñëpp bokk ko muy commune Touba bi commune bi it bi ñëwee li nga xam ne moom lañ yaakaar ne bi ñu toogee wax programme yi muy logistique bi nga xam ne fonctionnement am ci carburant yaakaar naa ne lu mu bari bari munul ëpp 5000 litres ma yëkkati 5000 litres jox leen waxtaan ak sama bureau municipal ak conseil yi yëkkati trente million de francs CFA def ko ci participer ko ci waaye 80 personnes yi nga xam ne ñooy personnel service assainissement ma jël 30 personnes yi mettre ko à disposition de Touba ca kanam ngir ñu mën a ànd ak liggéey bi à parti de tey ba ba ñuy wax liggéey bi jeex na ñu nekk ci seen disposition ak oto commune bi nga xam ne Eder Couleur la ñu ngi fi. te fépp fu ñu war a manque wala fu ñu war liggéey dañoo war a dindi ndox ma mu ànd ak ñoom dindi leen ndox moomu ba faciliteel ñiy liggéey ñu mën a liggéey ak leneen loo xam ne nee na këtt ne jonn te commune bi man ko teg si ak droit ak may ma ko ma def ko ma diisoo ci ak ñi ma ci mën a diisoo topp ànd ko ñoom ba mu jeex gan loolu daal laa la ñu laa ne woon danaa ko leeral te di leen xamal ne Abdou Lahad Ka ci cinq premiers membres te membre de Touba ca kanam yi la fas yéenaa bokk